yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu juróom-ñetteelu njàngale mi yàlla àtte na nit ñi tabax taaxu babel nanu bamtu nettali bi weesu benn lu tax yàlla sànq àddina ci am mbënn ndaxte nit ñi bàkkaarkat lañu woon ñaar ci jamono noyin ndax kóllëre amoon na diggante nit ñi ak yàlla déedéet ñett bi noyin artoo nit ñi ci mbirum mbënn mi ñëw lan la nit ñi def dañu ko tanqamlu ñent naka la noyin muccee ci mbënn mi yàlla sant na ko mu daaj ak gaal te def na ko juróom lu tax noyin mucc ci mbënn mi ndaxte noyin dafa déggal yàlla juróom benn ndax yàlla def na li mu wax ci mbirum bakkarkat yi waaw sànq na leen mbind mu sell mi nee na ci njëlbéen gi saar fukk ak benn aaya ñett ba aaya juróom-ñaar ñu ne ay ca ñu defar ay mool lakk leen ci safara ba ñu ñor mool yi di seeni doj ñu taqale leen goudron ñu ne ay ca ñu tabax ab dëkk bu am soror bu sar ci asamaan kon dinañu am aw tur te duñu tasaaroo ci kaw suuf bi ñu ko defee aji sax ji wàcc ngir gis dëkk bi ak soror bi ñu doon tabax aji sax ji daldi ne bu ñu tàmbalee jëfee nii di menn mbooloo te bokk wenn làkk kon dara dootu leen të nañu wàcc te saafaan seen làkk ba dootuñu déggante bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla àtte na nit ñi tabax taaxu babel nettali bi mu ngi jëm ci taaxu babel at yu bare jàll gannaaw ba yàlla musalee noyin ak waa këram ci mbënd ma àddina si barewaat nit ñi gën bare ci nit ñi fàtte woon nañu ni yàlla atte woon niti àddina bi mu indee mbënn mi ñu dëddu yàlla jéemuñu xam yàlla jéemuñu ko gëm nit ñëpp ci àddina ñoo bokkoon benn làkk yàlla wax leen ñu tasaaroo ci kaw suuf si waaye ñu bañ ñu ne nañu tabax benn taax bu kawe ngir kenn du fàtte sunu tur te duñu tasaaroo ci kaw suuf si ñu ngi doon wut ab dayo noonu ñu tàmbali tabax taaxu babel yàlla daan leen ndax seenug déggadi mu def leen ñuy wax làkk yu wuute ñi bokk làkk booloo mbooloo mu nekk ak làkkam léegi dégganteetuñu ñu bàyyi tax mu kaw ma ñu doon tabax yàlla tasaare leen ci ay bërëb yu sore ci kaw suuf si looloo tax nu tuddee ko babel ndax foofu la aji sax ji saafaane làkku àddina sépp te tasaare leen ci kaw suuf sépp njalbeen gi saar fukk ak benn aaye juróom-ñeent moo tax am na ay xeet yu bare yu seeni làkk wuute ci taaxu babel la nit ñi tàmbalee yëg seen bopp waaye yàlla dina àtte bépp bàkkaar te dina def ñi rëy ñu suufe fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn ndax nit ñi toppoon nañu yàlla bi ñu toogee ca benn bërëb ngir tabax taaxu babel déedéet yàlla nee na leen ñu tasaaroo ci kaw suuf si waaye ñu bañ ñaar lu tax nit ñi bëggoon a tabax taax ma ngir seeni askan bañ a fàtte ñooy ñan ñett kan la nit ñi toppoon bi ñuy tabax taax ma seen bakkan ñeent naka la yàlla daane bakkaarkat yi taaxu babel yàlla dafa def ba nit ñi bokkatuñu làkk juróom naka la yàlla attee nit ñooñu atte bi mooy yàlla defoon na ñu wuute lakk ñu teqali ko ku nekk dem sa yoon moo tax léegi xeet yi wuute te léeg-léeg ay rëq-rëq di am ci seen biir yan melokaan yàlla lañu gis ci nettali bi te naka lañu ciy feeñe yàlla xam na lépp yàlla xamoon na li nit ñi doon xalaat ak a def yàlla bëggul bàkkaar nit ñi dañu doon wut ab dayo ñu tàmbalee beew noonu yàlla àtte leen ndax seen bàkkaar yàlla mooy boroom doole yàlla def na nit ñi ñuy wax làkk yu wuute beneen yoon dinañu waxtaan ci ba yàlla bàyyee seytaane mu mettital ayuba